bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaam ala sayidina wa mawlana muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashaabihi wa xudaamihi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullah ma maa ngi nuyoo di nuyu bokki julli yi nga xam ne ñu ngi nuy gis ñëpp eh, di jiital ci nuyoo bi sëriñ Tuubaa sëriñ Muntaxaa Cheikh Mouhamadul Muntaxaa nga xam ne mooy sëriñ Tuubaa te mat ko sëkk eh, di sant nag eh, sëriñ Modou Mamoun mi ak bokk yi mu àndal ak sama rakk yi mu àndal lépp ngir fonk daaru salaam ak fonkam daaru salaam e, umput kenn ndax kasu rajab bi gën a rëy ci njabootu suñ fàllu bu agsee moom fii la koy defee ci daaru salaam ba waa daaru salaam yeewi ko mu door a dellu ci ay ganam loolu ak yëg mënu ko weesu lenn luy xew daaru loo xam du ñëw teew ci amul amul noonu mu ko waxee tam rek fii lañ bokkoon nekk ba ban ban samay nopp ba nuy tut tànk <laughs> ndax sama baaye <laughs> ba nuy tut tànk eh, waaye eh, mat rek lañ ma sax ci moom mm-hmm. noonu ko suñu àll yi jawaxee mat li doon rek eh, kon nag sëñ bi yàlla na fi yàgg te wér mm-hmm. njabootam gi mu àndal itam yàlla nañu fi yàgg te wér te barkeel waaw suñu moom itam kàddu yi ma wax nii ku ko dégg xam ne mooy boroom kër gi moom mooy boroom kër gi bu ma demee këram it noonu laa fay demee loolu nag day booleeg mag gu yàgg ndax bi nu njëkkee ànd dem ci Sëñ Saaliwu Sëñ Saaliwu wax na fa bokk gun am sax koo xam ne ñun ñaar xamuñu ko woon waaw mu mu yëkkati kaamilu alxuraan jox ko sëñ bi sëñ bi ubbi kaamil ba ci aaya bu mu dal boo xam ne moom mi defe na fàttiku ko surtout yaasin sëñ bi wax ca wax ju kiimaane suñ yal na ko suñ borom dolli ay leer waaw sama diggante ak moom itam suñ alay ji yi moo moo ko sabab moo ko sabab lay sabab sa nag mooy sëñ bi bi mu tegee xel ko ngir jaamu fa yàlla liggéeyal fa sëñ Tuubaa ba mokk dafa bëggoon jot ci bëggoon a bëggoon ñu ñu dogal ko doli mu jafe ma ñëw di waxtaan ak moom mu ne ma ah, man de sàmm si sax samay xarit lañ ñu yendu si waaye daal dama leen ko bëgg a far bàyyee mu ne ko ah man di man bàyyiwuma sama wàll di ko maame mu ne ah, kay du ma bàyyi mu ne ko kon de bu ma amee ndigal rek nga xam ne eh, ba ma woo suñu àll yi suñu àll yi dana bis bis boo bëgg rek bis bu sëñ bi wax rek ndax gis sëñ bi rek laa bëgg waaye loolu yëpp ngir sëñ Saaliwu yokk ab liggéeyam ci toolub sëñ Tuubaa bi rek ku gis ne mu def xel kom rek nga xam ne liggéeyal na fa sëñ Tuubaa lu yaatu yaatu liggéeyal na fa sëñ Tuubaa lu yaatu màggal gii nag di màggalu Daaru Salaam sëñ sëriñ da ko moom ndax bisama mooy bis bi nga xam ne ci la njëkk a bég ci àdduna ci la njëkk a toog ci àdduna ak njabootam wër ko sëriñ Fallil bind kaamil andi kaamil alxuraan andi sëriñ bind kaamil alxuraan andi ñu andil ko sëriñ Bachiru ay bokkam yépp wër ko loolu fii la ko sëriñ Tuubaa njëkk a ci bis bi ñuy màggal waaye li ko jiitu lépp ci diggante loxoy tubaab beeg kër ma baak gànnaar foofu rek la nekk waaye bis bi fii euh, bis bi mu njëkk a béggee daal mbég moo xam ne mosu ko bég fii ginnaaw ba mu gisee la fii fii la ko fii la ko amee bis boobee nag maam si Anta yalwaan ko ko ne ko man kat danga noo santoon digal nu bis bi la tubaab bis bi la suñu borom teg yan bi la yóbbu ci géej gi bu ñëwee nu nu dala nu dala ci sant la yàlla man nag may yalwaan bis bii nga ñëwee ci sama kër gi jóge ci nattu bi bu ñëwatee ma di ma di ma di la ci fàttaliku di di di la ci ñaanal mu ne ko may naa la ko te may naa la ku ku fi ñëw fekk la fit lu mu fi ñaam sun borom defal ko loolu moo waral lu di ko woote nii sëriñ sëriñ si tàdd si fi ñëw nag ñu sëpp muy bokk yi ngeen gis ak yi ngeen gisut wax dëgg yàlla liñ def rëy na ci nun lool Eh, ndaxte sëriñ Tuubaa suñ Muntaxaa ni mu ko digle woon rek ne eh, li buñ mënee bañ a dajale mbooloo buñ fa dajale mbooloo daayira buy ñëwit daayira bu bu nekkit mën naa yebal ñaari nit ñu indil ko seen addiya te ñu ñaanal leen ci loolu la tàmbali woon waaye mujj na mel ni ko suñ bi waxee mel na ni Sëriñ Tuubaa mbiram mënee su ko mënee tuutal ndax dama waxoon ne nun dey bu nu Sëriñ Tuubaa bu nu Sëriñ Muntaxaa sax ne nu mën ngeen a woote màggal gi danañ jël loole delloo ko jox ko ko àddiya ndax màggalu Sëriñ Fallu gi fi jaar te jox leen digal ñu jëfe ko kenn màggalut màggalu si yëpp laat jaar fi kenn màggalut laylatul xadar jaar fi kër Soxna May gisuñu kenn màggalu Daaru ci jaaxi mu joxe ndigal di kenn màggalut kon nun bu nu joxee bu baaxee ba nu ne mën ngeen a màggal sax war nañ koo delloo addiya te def ni nga xam ne moom la ñi nu jiitu def waaye gis na ne màggal gi li mu wax ñaari nit mën nañoo ñëw ak wàññi mbooloo mi man gis naa ne eh, màggal gi àgg na foo xam ne danañ ci danañ ci amit loo xam ne musuloo ko am ci màggal danañ ci am ci yërmande saayir ak yërmande baatin loo xam ne musuloo ko am ci ak màggal ndax lépp looy def ci yoonu Sëriñ Tuubaa te àndut lu mu bari bari ak lu mu réy réy daanaka njëriñ la du bari lii nag dafa ànd ak ndigal moo tax màggal gu mel nii musuñu koo màggal waaw kon nag Sëriñ Muntaxaa yàlla na fi yàgg te wér sëriñ Mor Fati mi maam Cheikh yàlla na fi yàgg te wér sëriñ Abdou Xaadir mi sëriñ Modou Mamoun yàlla na fi yàgg te wér njabootu borom gaawaan gépp yàlla leen fi suñu borom yàggal ak njabootu maam Cheikh Anta ak kilifay lislaam yëpp ma di ci jiital nag sama xarit bopp bi sëriñ Aliou Dia liggéey ba muy liggéey ci mbalaxe nga xam ne man dama ko teewe ay yoon bu téyewu itam dégg nga xam nga ni mu ngi liggéeyal lislaam liggéey bu rëy a rëy kon nag yàlla na ko yàlla taxawu moom itam sàmm ko sàmm ko ba li mu ba li muy liggéey lépp mu àgg fa mu àgg fa mu ko bëgg a àggale àgg fa mu ko bëgg a àggale académie minan bi tam maa ngi leen leen sant bu baax ñoom ñaar ñëpp ak ak Assalaamy maa ngi leen di bu baax ci bi ngeen fi teew ndax tam baax na ci mm. waaw baax na ci lu baax moom ak waxi ku baax eh, ku ko ku ko jottali faaw nga am lu baax waaw te sëriñ sëriñ Modou Mamoun mooy sëriñ Fallu waaw sëriñ Aliou Diame itam mu mu mu fi El Hadj Malick rek waaw kon nag eh, seen ñaari wax wax wax yu am njëriñ la yoo xam ne ñëpp mën nañ ci jariñu njabootu suñ sama rakk yi njabootu suñ maamun maa ngi leen di ñaanal ñu yàgg fi lool te te am barke yàgg fi lool te barkeel di ñaanal mboolem taalibe yi ñu ñëw ci màggal gi eh, mboolem ku ñëw ci màggal gi rek jëfandi ñu ngi lay sant bu baax di ñaanal lépp loo loo loo fi ñu am sunu boroom defal la ko te nu fekkee ko ay déwéni déwén te te lépp ànd ak jàmm réew mi itam ginnaaw dëkk bi dëkk bu jàmm la tudd ah nuy ñaan sunu borom def ci jàmm ci réew mi ah, dàq jàngoro ji ah, barkeb dëkk bi Sëñ Tuubaa tudde Daaru Salaam kon nag ñi fi nekk di yënguti ci àdduna suñu borom dëppale seeni xol ba ñu am jàmm jàmm rek xew fi ñoo koy ñaan ci barke Serigne Touba barke maam Cheikh borom borom bi jërëjëf